dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko am na ñetti mbir ma ngi leen di xaar te ñetti mbir yi leen di xaar ay mbir la yoo xam ne war nañu ko saafara ci ni mu gën a gaawee ba ci njëkk bokk na ci Barça wala Barsax gi maanaam émigration clandestine bi nga xam ne ma ngi mel ni tulleeg ma la ci ne ñooy jël gaal gi di faatu mi jamono ji maanaam lim bi kenn mënu ko natta loolu nag jot na jamono ji ñi nga xam ne ñoom la ñu tabbu yees ñu daal di ci taxaw taxaw boo xam ne taxaw bu leer lay doon ngir na yi bàyyi lu jëm ci wàllum gaal gi nga xam ne moom la ñuy jël te nag gaal yi xale yi jël ñoo ngi ciy faatoo yéene kaay gi ne na bu passé immigration clandestine bi maanaam barça wala barsax gi bu dee am na leneen loo xam ne moom la Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko war a lijjanti ci réew mi mooy lu jëm ci wàllum inondation yi maanaam wàllum mbënn mi nga xam ne bu xii ne am na ñenn ñoo xam ne dootuñu nelawate ba yàndoor jëm ci wàllum inondation yi lu ngeen ci ay milliards yi milliards lañ ci dugal ndax nguurug Abdoulaye Wade dugalu nañ ci milliards nguurug Macky Sall nag moomu jógati ko bi ndax lu toll ci 717 milliards yoo xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal dugal nañu ko ci lu jëm ci wàllum inondation bi tey ji la wàllu gën a ay loole moo tax journalu Mamadou Oumar Ndiaye bii de la témoin nee lu jëm ci wàllum inondation yi jamono ji maanaam Ousmane Sonko ak Diomaye Faye war nañu see taxaw taxaw boo xam ne taxaw bu baax lay doona waaye nag bu weesoo lu jëm ci wàllum inondation yi ak lu jëm ci wàllum barça wala barsàq gi xale yi nga xam ne amuñu liggéey jamono ji takku nañu ci mi bëri nañu ci mi te nag loole ñi nga xam ne ñoom la ñu tabu yees ba xale yi am liggéey yéen na benn gaal nañu ne ñenn ñi ay doomu réew Sénégal la ñenn ñi ay doomu réew Mauritanie a kaay gi du l'observateur xëy du ñu xibaar naan ñu gaal googu nga xam ne fekk nañu fa lu toll ci fukk ak ñeent dañu ñàkk nga teere ji ca waaxu république dominicaine seeni carte d'identité la ñu xool waaye nag ba ñu ko xoolee yoo xam ne ñoo doon jël gaal gi ngir dem ca diwaanu Espagne bi ñu xoolee tamit seeni at maanaam diggante 24 ans ak 33 ans yéen a kaay gi du l'observateur xëy googu nga xam ne fekk nañu fa am ab lim boo xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan fekk nañu fu lu toll ci fukk ak ñaar frontière ci ay sachet cocaïne yéen a kay gi di enquête xëy di ñu xibaar nañu Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières moom tamit yëkkati na ci kàddu nee na ji war ne jot nañu daal toog si réew mi waxtaane ko ndax xale yi nga xam ne jël gaal gi di dem ci bitim réew te di ca faatu lim bi jamono ji bari na lool gi di Direct News xëy di ñu xibaar nañu am na ñaari mbir yoo xam ne moo teree ne la Ousmane Sonko ba ca njëkk bokk na ci déclaration politique générale la toll yéene kaay gi ne na Ousmane ndax def na déclaration patrimoine loolee mooy laaj bi nga xam ne journal bi xëy na di ko laaj maanaam ba léegi maanaam kenn bi mu waxee alalam daan nañu koy fësal journal officiel waaye nag Ousmane Sonko ba léegi amul benn yoon boo xam ne fësal nañ na lii mooy alalu Ousmane Sonko te nag am na yenn ci sénégalais yoo xam ne sàkku nañ Ousmane Sonko def déclaration patrimoine ba pare nag daal di koy fësal ñëpp daal di si Ousmane Sonko dafa bëri xaalis yéen kaay gi di direct news Madiambal Diagne nee na Ousmane Sonko ren ji déwén du ngeen ko gis mu daal fësal benn yoon li nga xam ne mooy patrimoine am maanaam wax li mu am loolee du ngeen gis Ousmane Sonko def ko fonctionnaire boo xam ne multimilliardaire la kaddu yi Madiambal Diagne la lu jëm ci wàllum déclaration politique générale na tere bu Ousmane Sonko ni ñu koy ngawte ngawte ci réew mi loolee musu fee am yéen gi nee na nag am waaye taxul Ousmane Sonko dem ca assemblée nationale ndax Bassirou Diomaye Faye jamono ji maanaam dafa mel ni bëgg-bëgg mooy tas assemblée nationale la na nga xam ne Bokk Yaakaar maanaam ñoo ngi xaar ndax nee ñu bëgg nañu ko tegal loo xam ne lu diis lay doon ndax bëgg nañu fa sulli lu jëm ci mbiri Adji Sarr ndax ay pancarte yoo xam ne dañu ko bëgg a def def ca photo Adji Sarr loole bokk na ci li opposition bi jamono ji di xaare Ousmane Sonko ca assemblée nationale motion de censure bi loolee fanaan a kaay gi délibération xëy wax ci yi nga xam ne ni ki démb amal nañu ko ci conseil des ministre Ousmane Kane jamono ji moo nekk gouverneur bu Ndakaaru Al Hassane Sall yóbbu nañu ko diwaanu Saint-Louis yéene kaay gi ne nit ko président conseil de développement des cultures urbaines maanaam xaalis bi nga xam ne moom la ñu président conseil d'administration bi nit dof la ko def kilifa bu Y'en moom la def président conseil d'administration bu Grand Théâtre moo di ñaa ñu def ko président conseil d'administration bu journal Le Soleil yéene kaay ko fa yéene kaay gi leen foo xëy dañu xibaar naa ñu jóopa yëkkati nañu koy convoqué woon ngir nag moo amal passation de service moom ndawi APR bi daan wax ne dañu ko doon bu ndoxatal di ko jéem a nag humilier waaye nag loole mënut jàll ak acharnement bi ñu ko teg moom jéegi jóob ma koy ñaawlu ci biir journal bi ndax nee na nguur gu bees gi nga xam ne moo fi nekk maanaam ci lu jëm ci wàllum dictature ci li ñuy yëngu yéene kaay gi bés bi xëy dañu def ci Sénégal bëri na genn xeetu bëri koo xam ne li muy juróol Sénégal ci koppar bëri na ndax élection yu ngeen gis ci réew mi ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards lañ si dugal loole moo tax nag ñenn ci société civile bi jamono ji la ñuy sàkk mooy élection législative yi ak élection locale yi ñu daal di koy boole yéene kaay gi di point actu xëy di ñu xibaar naan ñu taskado xabaar yi jamono ji ñoo nga ciy benk ñinke maanaam ñoo nga ciy jafe-jafe yéene kaay gi nag nee na forum justiciable ñoom Babacar Ba jamono ji nag li ñuy sàkku ci gouvernement bu Sénégal maanaam ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk presse bi ngir nag saafara jafe-jafe yeek benk ñenk yi nga xam ne taskado